asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci trom ak santam ñu dellu si naan dellu siyaat nag ci li nga xam ne ni lañu daan faral di def mu di saa su ne bu nu amee temps dañuy toog jël sunu temps mën a leeral li nga xamee ne moo dox sunu diggante ak askan wi loolu mooy lan mooy actualité boo xamee ne actualité du jour la wala actualité boo xamee nekk ki ni dafa tombé ñu war ko di fàttali nit ñi su ko defee ñuy mën a xam fi ñuy teg seen tànk rawatina ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci bitim réew di daan sunu doole ñu ñuy wax ay immigré ressortissants yoo xamee ne ñu ngi fii ci Italie ñii ngi fële ci France ñëlee ngi partout dans l'Europe fenn fu ne doomu Sénégal yi ña nga fa te amuñu dara lu leen protéger gannaaw bu nu ci suñu borom tabaaraka wa taala kon mu mel ne ñoom dañuy xëy di di yëngatu ci loo xamee ne que ni non seulement dañ ci yëngatu waaye du seen intérêt mais si intérêt. famille bi nga xam ne moo nekk ci seen gannaaw ñu sonn lool réew mi ak jafe-jafe yi fii nga xam ne fi lañ ci toll waaye Sénégal nag mel ne ñoom waaye daan doole yi ñoom ñooy seen ay noon ba tax na saa su nekk yaa ngi dégg wax ju ñaaw ju nekk ñu ko yëkkati di ko teg seenub der te la koy def mooy nooni dëkkaale yi nga xam ne ñoom nga dëkkal ñu xam sa biir xam sa biti ñoo lay jël jox la noon yi ca biti noon yi ci biti nag mooy ñan mooy ñett ñi ma leen di bëgg limal walla ñeent muy ñi nga xam ne ñooy yéeg ci saret yi ak ñiy yéeg ci car rapide yi ak garam place yi ak marché ba ñooñu ci boppam am nañ jot jot koo xam ne xamatuñ ne sax maanaam ñoom ñi ngi fii ngir problème yi nga xam ne dañ koy yàkkamtee dem ci ñetti garab place yi ba di ko fa toogee te problème bi mooy ñan mooy immigré yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew lu ñaaw rek lañuy jël di ko teg ci seenu der te loola jékkul dëgganul ndax ku ci amul doom am nga ci jarbaat wala nga am ci mag wala nga am ci rakk wala nga am ci jëkkër te li ñuy daj pour réew ma jag ñooñu dañ leen di war di jàppale bu baax di leen fonk di leen dimbali di leen yërëm di leen yéer loolu mooy tax maanaam ab société di dox waaye jël nit ki bittër ko waxtoo jot ngay xool la ñaaw ca moom ak la ñuul ca moom di ko teg ci mbedd mi xuma laa nga teg ci mbedd waaye nga di ko doxee foo toll nit ñi ku la gis sax adresse boobu la lay jox lu xewati boo dikkee commencé nekkaat ci ñoom saret yi li ma ciy wax da nga ciy dugg gis ñu nan moodu moodu yi dégg na réew ma dafa naqari nga dégg ko ne la ah man kay kër ki ma dendal borom mënatu a delloo ay këyitam dañ ko yàq te dara leeru la ci nga dégg koo xam si danaan ki ma dendal de nee na toog na fa ñaari at amutul liggéey dara leeru ci nga gis koo xam ne si danaan diw de këram nga jaay na ko dara leerul la ci nga gis koo xamante ni si naan diw de jabar ja tas na nga dégg ko naan la ah jabar kay tas na ndax nee na mënatu koo yor ay baayam a ko nangu si ak yaayam ñoo ko nangu si mu nekk wax ju ñaaw joo xam ne si même bu amee sax sutura dafay baax pour nga bañ ko génn di ko tasaare ndax iñaan ci boppam moom mooy yoote noonu nit ba bu ko bu ko attaqué ba sonal ko ba sonal ko ba sonal ko daanaka rek maanaam duutu mën a am tolérance ci loolu saa su nekk mu ngi ci yooyu soo yéegee ci saret ba ba loola sàppi la nga wàcc dem ci garam place ba toog boo demee da ko fay fekk boo duggee ci car rapide bi boo demee loolu nga fay fekk dem nañ ba ñi nga xam ne sax ay maçon lañ wala ay ouvrier yoo xam ne dañuy liggéey foo toogee ñoom faaw ñu balaa nga faa def benn seconde wala benn minute ñu commencé naan la siin réew ma dégg naa nii dégg naa nii diw mi ñu dendal dégg naa nii la mel naa la mel mu mel ne lu ñu leen yéene woon te ñun day fu sunu mbir taxawee mën naa ne Sénégal dina taxaw ndax ñun dong ñooy mbooloo mi nekk ci bitim réew di daan suñu doole ngir ngir intérêt fukki nit yoo xam si ñu ngi ci sa gannaaw noonu kese ñooy def loolu sunu retour naa ne ñu la ñu ci gën a neex mooy nga dem yu yóbbaale teranga la gën a neex ci saw nekkin fii mooy bisub di dimanche nga téléphoné sa kër ñu ne la yóbbante ba jot naa ci mu wóoree na say doom xiifuñu say jabar ñu say mbokk xiifuñu ñu loolu mooy suñu kontaan léegi nag ñooñu bu ñu yëkkatee loola ñoom def ko jéesi di la ci gor di la ci xeex kooku dama ne ko seetal kon ñun ñu nekk fii nañuy bàyyi xel bu baax loolu ba tax nañuy xam fi ñuy teg suñu tànk di xam li ñuy wax di xam lu ñuy def beneen bi ci dolli ko mooy ñi nga xam ne dañoo nekk fii nañuy nëbbalante ay ay ay ayib waaye xam nga ne am na ci ñoo xam ne si li nekk fii lépp waa Sénégal xam nañ ko muy seen i dëkkandoo ci nekk gi ñu nekk fi def fi temp boo xam si duñu liggéey kenn nit nekk ci kër gi wala ñaar nit nekk ci kër gi di liggéey di yóbbaale juróomi nit ñooñu dem di téléphoné seen kër ñu naan ko dégg naa di wala yor dégg naa di wala dégg naa di wala yor loolu dama ne ku ñeme dañu laa déey kon ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii di def ngir yàlla na nañuy koy rafetal ngir jaamu yàlla gi mën a nangu waaye boo jëlee fi jël sa alal di ko yóbbaale nit ci dépasse wala ci luyaas ba pare nag di téléphoné këram di ko fa wax loolu bañoon ko ko jox sax te maanaam moo ko moo moo moo ko gënoon. loolu kon laa bëggoon ne léegi nañ ko ci sànni su ko defee ñu nekk fi mën ñoo dimbali bu baax di nëbbalante secret. li nekk fi fii ci waxtu jombul kenn kenn ku nekk fi ne mën ngaa xëy ci sa poste bu liggéey xëy ñu ne la suba mën ngaa bañ a xëy si ndax luwaa bi nu ne la nu ne lay dikkee mën ngaa man tey suba mën ngaa bañ a mën a li luwaay amit war a suul jamono ji ñu toll na nga ci geestu sa morom def solidarité boo xamee ne nii da koy def ngir jëmi suñu borom ji su ko defee la ngay am mën naa am mu yokk mën naa amit suñu borom eh, dolli la mën suñu borom mën naa dogal ka nga koy defal it suñu borom bu ëllëgee mu am lu mu ci loxoom ba mën laa noppal ci loolu ndax nun loolu lan nu yare ku wàcc loola yaa ngi ci leneen te loola du tax nga bokk ci kon nañuy góorgóorlu ci loolu di yokk solidarité bi di wàññi ñaaw téef yi di wàññi weerante bi di waxante lu ñaaw te te jàmm te xam ne maanaam guddi gu nekk mën naa doon bëccëg bëccëg gu nekk mën naa doon guddi te yàlla mooy doxee noonu jamonoom ndax moo ne damay génnee lëndëm ci biir leer génnee leer ci biir lëndëm génnee jant bi ci biiru weer génne eh, ci biir asamaan génnee ci weer ci biir asamaan dugalaat ci jant bi ci biir asamaan dugalaat weer ci asamaan jël luy dee génne ko ci luy dund jël luy dund génne ko ci biir luy dee kon képp ku dib jullit yor say tànk di dox la nga war a sant yàlla bu fekkee yàlla may na la wërsëg jafe-jafe yi lu bari tegg ko ci sa kaw maanaam dëll la la nga war a sant yàlla mooy nga geestu ci ñi nga xam ne ña nga ca kër ga di leen dimbali te bañ leen a ndax jox nit dara ba pare di ko ca di ko ca cax mën naa ñàkk wala nga jox ko ba pare bu ëllëgee bu demee ci mbedd fekk fa dégg fa wax ja mu wóor ko ne yow yaa ko fa yóbbu loolu lu ñaaw la kon loolu daal moom boobu poye buñ buñ ko buñ ko buñ ko jàllee waa ñi nga xam ne suñu noonu lañ nga xam ne ñun la ñuy jiiñ lu bon lépp lu ñuy wax takkum jabar yeeg feebar beeg yépp ñun lañ ko jiiñ ba taxaw tey nga xam ne tey loo def ci sa kër ci secret dana génn ci mbedd ma bu ëllëgee nga fekk ci mbedd ma muy taxawaalu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla jeexal crise bi tàkk ba teem ku nekk foo ma di nekk nekk ci sa donkaas gi wala asalaamaaleykum